parce que tamit sëriñ day nekk benn nopp moo koy yàq gaaw a gëm mm. jigéen ëppal d'accord parce que man fi mu bëgg comme jigéen na lay ñëw nga napp ko mu mm. commencé léegi ne la doo takk ñaareel nga ne d'accord ngeen dem mairie ba signé ko mu ñëw ne la sa yaay damaa soof xam nga ah. ëppal la ngi bëgg a ñëw <laughs> waaw waaw sa rakk daf maa soof mm. maanaam yooyu ëppal la te la leen yàlla bind mënuñu ci dara te jigéen ñu baax yi sax mënuñu ci dara comme moo tax daal jigéen euh, képp ku muy nax tamit yéen ñi doxaan ak gelaw gi ngeen bàyyi xel leen jigéen ñi gars yi tamit ku leen nax parfois ñoom la neex de parce que tamit ki ngay nax bay lekk xaalisam indi sa mag bu góor mu jëm ko nax rek ba xam dina lekk xaalisam boobaa nga xam ne amul intérêt ci kooku am na ñoo xam ne dañuy nax seen bopp lu mu ci mën di doon rek euh, li wolof naan lu dul dëgg du yàgg moom laa gën a gëm ci lu yàgg dëgg la kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci diggante góor jigéen wàññi naxante bi tey teg dëgg te léeg-léeg tamit dëgg yëpp ko wut jabar boo ko waxee tam du am de wala il faut nga. ah dëgg nag léeg da nga ciy dëgg. Ah. ba am li nga bëgg. waaw ah, da nga ciy dëgg <laughs> ndaxante yéen dëgg yi. Ah. koo ci dëgg tam am li nga nga dëgg ci sa tànk ne fekk ba am li nga bëgg doo ko teg. waaw. jàll mais Cheikh Bara yi ci dëkk bi ku ci bëgg jëkkër nag ñëwoon bëgg sëy balaa un mois loo ko jox sangu fi ruusi wala. sangu rek jigéen bu sangoo bu fekkee dafa ami rab bu rab yi dañee. Mm. mu sangoo bayre day am jëkkër Mm-hmm. amut bay bayre nag du am njëkkër. du am njëkkër waaw. Mm-hmm. jigéen bu ay gaaf nag mën nga ko dinti. non loolu nag xam nga baat la yu ñuy wax yoon mën ngaa toog kii doo ko mm-hmm. ay gaaf mooy lan. waaw léeg-léeg xam tamit jigéen am ñaari jëkkër mu dëddu kenn ñemeetu ko moom wóolootul boppam ak xeet boobu. yooyu loolu aw rab la. awrab dañ koy faj. dañ koy faj waaw. am na jigéen ñoo xam ne bu ñu àndoon ak Baye Mass mi baay Mass tàkk na bu ñu àndoon nga fay. parce que seen biddiw yi la. jigéen ju jig ñëpp amut jigéen ju jigéen ñëpp amut. waaw am na jigéen ñu yoru rab mm-hmm. ñoo xam ne yow boo leen takkoon mm-hmm. mën naa diis nag doxaan mi day diis gan takk gi diis gan waaye boo fexee ba maîtriser leen bañ toog ci kër gi mm-hmm. di yaakaar ci yow dépasse takk nga yaakaar du ma sa tas takk nga mën nañ laa fekk ci kaalaandoo yóbbu la ci Range Rover parce que parce que si dañoo am raw rawaxaan yu diis wala jinne yu diis yoo xam ne lépp lu maanaam lu leen wër sax dañ koy dañ koy kiiwaale waaw mën naa am ay jafe-jafe yooyu gis na xam ne sa jabar ji dara la mm. waaye téewuti bu dee wàllu wërsëg moom da koy bu baax da yombal lépp mm. loolu dafa am aduna si ak a yéeme Cheikh Bara ku yor terrain yu bari nag bëgg ko jaay mu jar ci lu gaaw ak ku am terrain yu am coow bëgg a tàqali ko coow li soit mën na la cee sax ne la booyoon ko boo ko lijjantee nga jël sa wàll ma jël sa wàll loolu daal da nga naan aajo ju faju rek am ñoo xam ne daal aajo ju faju gis na bu dee mbirum terrain bu fekkee da ngay xëccoo suuf léeg-léeg mm-hmm. xam naa loo xam ne secret ayatu kursi yu la. secret ayatu ko jàngaloon ne mi ngi woon fii léegi xaw ma anam. Mhm. na sëñ bi de moo ma ko joxoon. waaw. Euh, da bind ayatu kursi yu. ubbi mhm. mi am loo ci dugal. ubbi mi am loo ci dugal. du ma ko wax ah oui saab kot la. Ah. boo demoon tey terrain bi. Ah. nga di ko waxaale. nga bàyyi ba guddi nga wàññi ko ñëw. Mhm. gas ko suul ko ci biir terrain bi yaa koy jënd. waa ko doon jaay téeméeri nit du jar. du moom. nga nga gisub terrain mun engrais lool baax mhm. man buñ gënoon ci koñ bi dinaa la woon terrain yi nga xam ne maa leen ni moom yëpp mhm. waaw ndax su ma ko wax am na yu ma bëgg mën naa la woon mag docteur Wade am na buñ bëggoon kon baa ma de dañuy waxtaan ngeen ñëw géew ma eh. defar non man kay terrain yi demee suuf si da ngeen gas pax mi ma jël ca suuf si ngeen sullee waaw ngeen suul am lu ngeen yóbbaale mhm. waa ji bu doon wër boo ko fayoon dix millions kee di fay wee yow dama toog rek dana ñëwaat ne la sawaay terrain bi yaa koy moom wala bu ko jaayeen kookaat kooka dana ñëwaat jaayaat la mais sa terrain lay doon sa yoo xam ne tamit mm-hmm. boo fa dëkkoon tey ci kër gi ñu la faa génnee maake sii na fii abadan defar soo ko defee nit du la génnee ci kër gi mm-hmm. boo nekkoon ci réew ragal ko la refourlé boo ko mm-hmm. defaree sangoo ci réew ma kenn du la refourlé waaw kon la demee boo kenn du la refourlé bu dee da ngay yori jabar jabar yi di tasaka fay wala nga yor njaboot muy dem boo jëlee wala daal nga dem cim réew sax. Mm-hmm. bëgg des ci réew ma faw waaw loolu moom nii laa koy waxee rek mu jeex. nii nga koy waxee dot jigéen ji daa am lu ci luñ ci def lu tuuti. lu tuuti dot doom daa am lu ci def lu tuuti. Mm-hmm. waaye nag yow lay wax nii nag. <laughs> boo ko defee doo ñibbi de. waaw mu day réew ma. waaw dootoo ñibbi moom ci àdduna. Mm-hmm. man ngay ñibbi de. waaye réew moom moom sama réew lay doon ba faw faw faw faw mooy da ngay jël sa karaw boole kook derub signal gas ko ci gas ko ci pak comme ça bu doon Sénégal fii mm. nga dem Masalik wala Grande de Mosquée fu ñuy tudd ci réew mi nga wàqi fexe ba suul ko bu dee nag réewi tubaab yi nga xam ne dañ mm. koy dañ koy karoog yooyu fexeel ba gas rek suul ci réew mi sa karawak ak derub signal nga xool mm. ba alaaxira boo mutul boo dee sax man mutu mën nañ la faa suul waaye daal fii yaa ngi dund moom barab ba sa barab sa barab waaw ah, comme Assane Diouf ñii ni ñu def ba génne leen na Donald Trump ak Dan Biden ànd ne dañ lay génne doo génn wallahi doo gën hmm? doo gën ah, di ngeen ko kon amul danger de kon dootul sa bopp ci réew la hmm. bu dee dëpp ci kër nag nit ko dee nag génnam ñëw na nekk mën naa nekk kay seex nag yëf yi moom kuy rek tax ñuy wax de waaw léegi ku yor parke gàllaajub dugal bii ah. ku ko am ah. boo ko joxee néew du ko dugal dugal bii de waaw ah, faaw waa ji day dund tey football nga doo ko ko léegi nag Cheikh Bara ci ku ku kuy yëngut ci sport nag bëgg dem ci club yu mag yi parce que am na joueur bu doon football ñoo xoon ko ay rab nga ne ko xumma lan ndoxum si ko tànk yi ba mu daa yàkkamti àdduna am dafa yàkkamti àdduna bi ma yónnee yónnee na ma loo xam ne sama xol bi sedd mm-hmm. ma di ko ñaanal waaye gis naa mu yàkkamti yàkkamti ko wóor ma ne li ma bëgg ci koo xam ne kenn xamu ko par exemple sa soxna tey mm-hmm. ma nekk ci moom fii ba at mii dellu si déwén. Mhm. billaahi wallahi Sénégal ku xëy dana la tudd. Mhm. moo xam dalay saaga moo xam dalay tagg. Mhm. waaye ku xëy dana tudd sawto xam nga loolu nag waaye ci at lañ koy def. ndax nit ñëpp maanaam ci folog bi la maanaam ci ci ngay ci ngay dem. di ko di ko dóor ab dog la boo xam da ngay dóor muy jàpp maanaam da ngay dóor mu jàpp ñii. nga dóor mu jàpp ñii day dem ba daj réew mi. ba daj réew mi ba nga xam ne ñëpp lay xam. ñëpp lay tudd. moo xam nag saaga. Mhm. moo xam tagg. waaye mhm. ku nit du xëy suba suba ba ngoon. Mhm. comme nit ñi nga xamee ne bu xëyee dana lekk suukar baa ma lekk xorom. waaw dégg nga. nit ki mënta xëy suba ba ngoon te tuddul. comme macha allah Cheikh nit ñaa ngi lay. voilà loolu dafa am. am loolu at at laa wax nag. man nga kaa toog di ko dagg di ko di ko dog di ko defar. am naa man naa laa wax fii basketteur. boo xam ne wallaahi laa si fii weeru déwén wii. waaw maanaam nit ñi moom la ñuy añee moom la ñuy reere moom la ñuy ndékkee. basketteur bu góor la. du ma la tuddal. ah non basketteuse wala basketteur. dama du ma la tuddal loolu lépp ay signe la du ma ko wax. damay wax rek ne la loolu maa ngi ceeg ku mel noonu. maa ngi ceeg ay footballeur. ay footballeur dégg nga. Mm-hmm. Euh, gis nga loolu dafa am ci ñaan. Mm-hmm. affaire football timit waaw yow xam nga ne man dinaa ci ñaan. dinañ ci ñaan waaye. Mm-hmm. du ma ñaanal gone guy bu dee gone guy jàng football nii di bëgg a dem. sangat bayre sangat bayre nga koy defal ak bu dee waaye koo xam ne yaa ngi ci bunt. ah. soo ñëwee nu waxtaan waxtaan wu sérieux même booba joxul xaalis. waaw xam nga jour moom sëñ bi ku ko taal am dara. ku ko taal am dara ku ko taal tàkk. waaw ku ko taal tàkk. <laughs> waaw. Mhm. léegi nag danaa mën a jël sama bopp. Mhm. Ah, au ñaan di defar di defar. ba nga ba doon li nga doon tay loolu moom man dama cee sawar ñaan ci. ay ay nitu sport yi. mais nag ay nawetaan nag. ay mbër muy bëreek. man yooyu moom wax dëgg yàlla bayre bayre na. bayre daal mën na waaye la muy laaj moom du def. léegi comme par exemple Sadio Mané bu demoon Bayern na nii. bëgg faa jëlee ballon d'or ngir nga nattal ko at. Mhm. bii passé ballon d'or bi ñu attaqué beneen at boobu nga tàmbali ko léegi mën na nekk nga xam day jot ci ballon d'or européen bi. waaw. Mhm, nga door ko boobu nga xam amul yàkkaar. def li ko xam nga Sadio Mané. Mhm. am na ñaan. am na ñaan d'accord waaye dafa amul bayre. bayre la amul ok. siiw na. siiw na. ñëpp xam ko nii mais mais bayreem. mais bayre mën nga ko res toog naag fan yële ministre bu a Sall ma ko da ngaa war a sangoo bayre mu a man mii ma ko danga ngaa siiw comme tey tey par exemple mm-hmm. nu ma la ko mën a waxee comme Adji Sarr rek Adji Sarr waaw ah, dafa siiw mm-hmm. mais es ce que am na bayre am na bayre ah mi mel ni Mendy ba ca Real waaw sa siiw faa ñàkk waaye amoo bayre ma ne ko sëñ bi amoo bayre mm-hmm. mu ne ma ah, ma ne ko amoo bayre da ngaa war wut bayre mooy nit ñi am ci yow ak cofeel ak cofeel bu jiggi dayoo ba nga xam ne day mel ni nii soxlaa lekk ak naan akub sëy Mm-hmm. noon lañ lay soxlaa ci seen dund mm-hmm. loolu mooy bayre mm-hmm. Sadio Mané bayreem dafa des dafa des su fekkee que yow mii da nga siifut bal wàcc waayam ca Liverpool sax dese na koo am na ko war a am waxuma laak nag waxuma laak nag leneen dafa des bayre bi dafa des dafa des voilà mais mën nga ko assurer Mbappé Mbappé moo bëri am na bayre Mbappé day ñaanlu a ah, Mbappé men ah oui ñëwagul ci yow de ah déet du ma ci man ay mbokkam ñëw na lool. non non loolu sax duma ma ci wax. waaye ah, Mbappé moom day ñaan. day ñaan voilà Real Madrid gii nga gis. waaw ah. li leen tax di gagné gars yi dama la koy wax benn affaire. Real Madrid tur tur dafa am solo. Mhm. Real mooy lan lu Real Real. Real mhm. mooy lan. mooy dëgg. moo tax fii ak koy tudd. Mhm. day day naax saa day naax saayal gars yi. day naax bi ci des mooy. dañoo am di ñaan lu. dañoo voilà ki leen di doxal ci affaire mystique. mi ngi foofu ci Espagne. Mhm. voilà. Ah. mu ngi foofu ci Espagne man naa laa jox. Mhm. tous numéroom jox la léppam bu ma paree fii ma toog dañuy ñaan lu ci mystique. ci mystique bu wér a wér a wér. Mhm. dañuy soxla ab jour. jox la turam ne la na ñëw. na ñëw lu tax Mbappé rëcc leen. dañoo dañoo bëggoon mu ñëw ci ñoom. waaw waaye dafa am maanaam maanaam koo xam ne dafa dem ca ca ñële. ci ñële. xam nga waa Paris moom dañ ne woon bu Mbappé demee rek ñu dee. waaw. ah. waaw. am ñu dem ci ñoom ne leen léegi bu ñu ñu joxoon nangam. Mhm. dafiy toog. dafiy toog. ñooñu ñu d' accord. d' accord ok. te ñooñu dañuy ñaan lu. waaw. Mhm. dana non xam nga ñoom ñu ñaan. xamuñu ñaan dañuy ñëw ne la am naa man secret mystique. wala man naa am ci lu nga xam ne man naa ko def ba nangam am ñu ne la bu nangam amee nangam am. ko dott Paris. bu nangam amee dañ ko liggéey ba mu toog fa. dañ ko moom c'est vrai kon du nag. Mhm. Euh, su fekkente moom moom yàlla dogal na. Euh, léegi sëriñu Paris yi dañoo gën a ay Real wala nu mu demee noonu. question loolu dama ne la. Mhm. Ah, li lii leen bëgg kii defal leen ko daal. ñi maanaam lay wax li ma lay wax nii bu du woon télé ma tuddal la tur. ne la mhm. diw sàngam. moom moo daan dem ci waa Royal ni leen wax diw maanaam par exemple Sadio Mané mi dañ ko bëgg dafa lànk mm. man nga ne xam nga ñoom xamuñu ñaan xamuñu loolu waaw dañuy ñaan lu sax nag tubaab am nañ seen i tegtal am suñuy bind mm-hmm. am na lu ñuy def ci ay ay ay ah, xob buñ bëggee si karak non non dañuy dañuy ñaan lu mm-hmm. laa ilaha illa la mm-hmm. benn sama ana ñim départ la woon ay benn xafa ay nasr ana ay ñoom ay ñoom Robinho ay Ribéry Robinho euh, dem nañ euh, bi ñuy ñooñu bi ñuy footballandoog benn sama benn sama kenn daaw ko tudd. waaw dorog baa mi lan moo ko téye woon ci football bi. dorog baa day taxaw cent minutes du laal bal. mais day dugal force day mhm. moo yóbbu Shevchenko retraite ak Shevchenko. dama ne la loolu mooy football dafa am ñoo xam ne xamuñu ñaan ñaanlu. Mhm. am ñoo xam ne ay ay ay man ni ma ko xamee ci li ba ci jot a am expérience nga xam ne ay nit a ma ko wax. Mhm. dañuy ña ngi ñëw ma ne la man de mbappe mii ngeen topp di daw. waaw mën naa la garantiral ne la. waaw dafiy toog. dafiy toog su fi toogee si ñëwaat lu ngeen may jox. ñu mm-hmm. négocier. Mm-hmm. ñu jàpp loolu. nga ñëw wut say sëriñ ci Sénégal. Mm-hmm. daat koy daat toog léegi nag loolu moom moo ko bàyyi foofu. moo ko fa bàyyi moo ko fa bàyyi mais Real dañuy ñaanlu. dañuy ñaanlu mais ku la man xam naa. ko xam ne am naa ko fii man mooy sama tubaab bi fi ñëwoon. dañ bokk groupe WhatsApp bi. waaw ak ka dëkk Fatick nga xam ne moom moo ñu moo ñu nekk interprète moom moo dégg suñ langue bi. kooku noonu mais kooku. kooku rayal rayal kese lay ñaanal. Mhm. rayal rek. kese kese kese. mu ngi ñaanal équipe bu mat a kese équipe bu mag bi. Mhm. kese am na ana yum daan ñaanal moom moom ma ko wax ana ana ñaanal na Porto ñaanal na Chelsea. Mhm. mais musul bàyyante ak Real. tubaab la boo xam ne. Euh, bi mu ñëwee ma koy seetlu dama lay wax benn affaire ma ne ko. léegi yow dama buggoon nga wax ma xamul xamul président Sénégal waaw ama bëggoon nga ñaanal ma diw. waaw mu nekk président senegal mhm. mu ne ma kan la. Mhm. ma ne ko. <laughs> xanaa kooku Ousmane Sonko. non non du Ousmane Sonko dama njëkk a jël koo xam ne ab animateur télé la. ab ne dama bëgg mu nekk président senegal mu génne xool te kooku daf maa xoola. daf maa dégg rek laa di ñëw. parce que dafa am ay nit yu dëkk foofu mhm. yu ko am yu ay maladie yoo xam ne dañ ko dañ ñoom dañ ko doon faju ci moom après ñu ñëw fi ne fii lañ wéree mhm. moom mu ñëw seet si ma dafa génnee mu xool ne ñu kii du ko nekk du ko nekk du nekk dara mhm. ma ko keneen ma joxaat ko keneen ko nga xam ne war na mën a nekk non no est-ce que est-ce que jëlaatuma photo xaw ma am na keneen ku ma jëlaat sama internet joxaat mu xool mu ne mënul nekk mënul nekk yaa ngi dégg ma génnee photo Ousmane Sonko nag xool ko. mu hmm. xool. xamut xamu ci kenn de. mu xool mu ne ma kii su ma su ma demee ci montagne ju kawe. Hmm. ah ma def ci nangam kii mën na ko nekk. mën na ko nekk yaa ngi dégg. Hmm. ma génneewaat photo euh, yaakaar naa Abdou mbay xaw ma kii nu mu tuddati euh, waaye Ablaye Balde Ablaye Balde. Ablaye Balde laa génne ma jox ko mu xool xool xool ba mu yàgg mu ne ma moom tamit. xaw ma am na am na ay tegtal yu ma waxaat. Mm-hmm. mën naa koo def mais mu ne ma kii. Mm-hmm. Ablaye Balla de. mu ne ma kii moom day am nguur di nguur nguur nguur day dee ci nguur. day dee ci nii la ma ko wax. voilà te xool Ablaye Balla waaw <laughs> day dëkk ci. billaahi <laughs> mu ne ma kii mu ma kii. day am nguur di am nguur de am nguur ba day dee ci nguur. boo moytuwul ko falu dina falu moom même bu jiitewul day am dara. day am wax la xam-xam dafa yaatu. te kooku fii ne nii xam-xam yi mu yor man. xaw ma ci dara. maanaam comme làkk ak lépp. dafa mujj ma ñaan ko ni ko léegi dama bëgg ñu tijji benn groupe whatsapp man ak moom. Mhm. Euh, ku ñuy wax jaabi moo nekk suñu diggante. Mhm. dégg nga après man tamit ma jox ko tul. Mhm. jox ko yenn ñaan yi nga xam ne man am naa ko. jox ko jox ko mu mu tamit mu yéemu. laaj ma yow pouvoir fan nga koy jëlee man ko man damay zikar damay def lii leeral ko moom tamit mu may leeral. ñoom ñoom nag famille famille bi famille bi quoi. famille bi mooy mooy moom mooy moom ay famille fajkat lañ ba daal voilà nekkul ay wér nag ay affaire yoo lu ñuy xam la nii loo xam ne dañ la koy defal waajal la nga nekk mm, ko léegi damay dem man damay moom groupe whatsapp sama mm. booy bari ñu ngi su ma amee su kii heure yi dañuy bind léegi may wax kee di ko traduire ñuy wax mu am yu may jàngal mm-hmm. wala ma am yu koy laaj mm-hmm. est-ce que lii ah kon daal sport daal man daal li ma bëgg mooy kon Euh, ku la indil club de deux mën koy première division ku la indil première division. ñaan ñaan ñaan amul naan man naa lii manuma lii. Hmm. ñaan moom mbir la moo xam ne. Hmm. Euh, mais je marque nag mi ngi mel ne nga naan daal ab ab ab ab Toyota. maanaam bu bees tàq wala Range. Hmm. mën naa dem ku ma ko jox ma dem ci Kaolack dem ci Mbàkke dem ci fii. da koo war a mën. mais nag am na luy ñëw pneu ba mën naa toj du dem. du dem wala dara lu koy gàllankoor mais ñaan moom amul loolu ay ku ma jox deuxième division ma def ko lii. loolu amul mais ñun ñu bëri de ñaan lu moom ñëpp koy def daanaka jeex na fan ngay ñaanloo lan ngay ñaanloo lan ngay ñaanloo hmm. loolu mooy affaire loolu mooy affaire mais daal mën ngaa gis ngem bu joueur bu ñu xamagul mu dem ban xam ko ci kaw. oui am na loolu am na mu rek. am na. Hmm. am na. incha ah dégg naa léeg-léeg ñoom yi ak yi dañuy war de. waaw du jeex de ah. def moom wala da leen di jéggal. waa xam nga war moom loolu gawuma ko ci ñaan. Hmm. gis nga nit bu fekkee dalaa wax soxla. ba mu la koy wax si diitug jëwam jóg. Mm-hmm. nga def ci baatin ba mu ba loola sotti mm-hmm. bu demaatoon ay ati at bu ñëwaatee dina la wër la ci baar sàngara nga toog sol kilote bu tollu fii takki jaaro di naan sàngara mm-hmm. lu tee da lay gëm voilà daw naa dootuma ñëwati boo ko fekk da nga fa amut soxla voilà loolu mooy affaire bi bu fekkee daal yaa ngi kurus di ñaan ku la wor ak ku la wër daanaka doo ko faale waaw ndax nit ki jamono bu nekk maanaam nit ki ñëw ci yow defe ne dara la ku ko raw fuuf mi ngi ñëw di mi ngi ñëw ci yow mm-hmm. dafa tolloog rek sëriñum ñaan moom du def naan maay ñaanal diw mm-hmm. diw ñëw na fi démb ak sëñ boo toog mu naan la hélas Diouf ma doon woog diw woon na ma démb dëgg mm-hmm. sëriñ xuddu nuñ koy waxeeti sudduurul axyaar xubuurul asraar dën ni góor yàlla yi mooy secret bàmmeel yi waaw yàlla boo baree fenn sax yàlla du la woon gént gu leer ku ne la bu lu ma gént gis ko lu la wax dëgg la waaw bari fen day tax boo géntee dara da ngay gént golo fekk aw fas la mm-hmm. waaw mm-hmm. fen baaxul sëriñ si tamit ngeen bàyyi leen euh, yenn sëriñ si laay waxal quoi euh, par exemple da ngay gis yow ci nit normal nii rek dëkk cib koñ maa koy ñaanal rek xëy na gënul ci suturaam ay ku mel ne ay Sadio Mané ak yooyu li defal Sénégal à chaque fois bëgg bës bu mu tax nga naan Sadio Mané woo na ma nee naa ko lii nee naa ko lii nanga mel ne soxlawul sutura di wax nanu éviter yenn site internet yi la dugal ci benn problème yi nga naan la bës bës boo xam fii Sénégal bës boo fi am lu mu rëy rëy rëy deux semaines nit ñi dañuy wax ci leneen bàyyi la te la nga waxoon daf fay des di la xaar nan moytu vaar ay maa defal lii Real day gagné ak ay gis nga sëriñ coow li bu jeexee rafetal njoolal amal kër yu rafet amal oto yu rafet gis nga client bi lay woo ñaar la lay doyee soxla bu wér jàngoro bu wér ak soxla bu faj xam ne sëriñ si ëpp xaalis ci Sénégal génna ñu télé waxuñu internet mm-hmm. mu yoonu waaw ah. nan bàyyi xel yooyu am na sëriñ soo xam ne ñaare client la ñu am wala ñett mhm. hmm. billaay te mu seen liggéey rek da leen mm, wax muy bañ a dañ rek ah. di leen wax dëgg te puis tamit même di wax Sénégal day gagné mu gagné seex ah. sëriñ waaw lu mu bu guddee hmm. ngay la rok si jaada toog ca toog ca waaw ku yem ak nit ñi yem ak nit ñi hmm. ku a yem ak nit ñi da ngay bañ yem ak nit Mm. waaye bokk ak ñoom heure lekk heure mm. naan heure tëdd heure yeewu ba nu bëgg a wuuteeg waxoo dëgg. Mm. dégg sëriñ. Mm-hmm. coow lu bari mooy boo yoree secret yàlla. Mm-hmm. nangu koo werd moo xam donte mi mille basmala la nga saxoo ko. Mm-hmm. ni lii kat dama koy def contrat la sama digganteeg sama borom ngir aajooy jàmm ñi. saa yoo ko fëggee fekk fa dara mi ngi mel ne nga tijji compte ma werse woo werse wu ma ba pare nga bëgg benn bis nga ñëw ne ma kàññam ci sa ngox ne mi nga faj sama aajo dama lay nax <laughs> rek wëri wëri wëri bu ñu demee banque ba duñ fekk dara mm. nga tijji compte mooy sama digganteeg yàlla ak yow ñu mm. tijji compte man ma tijji compte mm. guddi gu ne ma toog di werse waaw saa yu sa siditu jóg jógee ba mu wóor ma ne lii jar naa faj man na maa dem dugal xartu gab ci lu yomb ñëw jox la nga faj parce que am na lu ma fa dugal sëriñ day jaamu yalla sëriñ day yor turu yàlla ismullahil ahsam mm-hmm. même bu dee sax da koy doxaan am na sëriñ ñoon mënuñoo bàyyi doxaan mhm. waaye yorul doxaan yàqu ci dara ci sëriñ waaw mais déet waaye booy doxaan kay mhm. doxaan tey wér moo gën ngay doxaan te wér doo sëñ bi ah, xam na <laughs> même kay booy doxaan wér dal mhm. booy tiriyan wér dal booy naan loo mën a def rek del tudd suñu borom subhaanahu wa taala gis nga boo ko dee tudd day dem ba yàgg yëg-yëgu doxaan sax day dem ba nga xam ne boo ñëwoon ci jigéen ñi ba a doxaan sax ko tudd ne ko dama laa rek mu ne hey day mujj boo doo gisati koo ko defal tudd yàlla daf lay yëkkati. daf mm-hmm. lay jox salaahiya. daf lay mm-hmm. jox yaqin. Mm-hmm. dafay tax nit ñi ñeme la. day tax yàlla bëgg la day tax nit ñi bëgg la day tax ak yusru am. bari na nit koo xam ne mbiram nër ta jag. mbiram nër jag. Uh-huh. du ngeen jëflante mukk. du ngeen jëflante. xam naa la gis nga ci jamono jii fan yii ànd na maag sama soxna. su ma ko waxee nag day leer ba ëpp rek waaye damaa ko wax ne ko gis nga yàlla. Mm-hmm. damaa ànd ak sama soxna ak sama ñaari xarit mm-hmm. am kilifa gu ma war ak gisanteel ci mm-hmm. benn hôtel bi ñuy dem yoon wi am tuuti teq-teq ba heure bi ma ko joxoon ma tardé lu ma deux heures de temps deux bi ci des it mooy bu min wi jotee téléphone bi day dem silencier man ma fàtte ko dugal ko ci sama poche mu di ma woo ma laaj foo toll yëguma ko bi ma ñëwee ba yegg si gisante wun euh, genn kenn ci secrétaire am ya fa nekkoon ne ma nag comme ñëw nga moom dem moom mënta nekk léegi hmm. dañ lay jëlal fii sa mbor hmm. jëlal fii sa ñi nga àndal bu subaa bu xëyee sept ci suba ngeen gisant waaye hmm. du am ma ne ko duma ko def baal ma dellu bu mu xëyee nu xool nu déggante gis nga bi ma xëyee avant midi dégg naa lu ko dal loo xam ne maanaam maara day taali waaw yàlla du caaxaan ko dégg naa ko ci rajo bi dama xëy suba di diglu rajo bi rek dégg ma ne ah bu ma fanaanoo woon ak moom dañuy xëy musiba mii dal ko ma ne xaw ci xool dara mm. kon bi ma yàlla naan bu ko gis bi may dem di am jafe-jafe ak mm-hmm. àgg fekk mm-hmm. la yàlla doon bañ ma dugg ci maanaam yàlla dee jàngee ismulaayil asam yàlla yàlla la yombalal mbir mu pare rek mm-hmm. lay ñëw indil la ko pour nga am nga am ci sa ndam defet fu mu ñëwee mooy waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan fu defet ñëwee yàlla da lay rocc doo fekkee defet fu ndam ñëwee sa da nga naan laal rek mu ne tëf. fekk yàllaa ko pare. Hmm. loolu mooy ismullahil axsam. macha allah yenn fen yu tembare yi. ku ko hmm. def xamal ne du tuddukatu yàlla. Ah, billaahi yàlla du xiir sax ci yooyu. sëñ si dem yenn baax yàlla du la xiir sax ci loolu. yëg-yëgu wax nangam ba noppi ndekete la ngay wax nii la jëm la ngay wax jëm ne. Hmm. loolu kuy tudd yàlla sax du la dal. ah mais sëriñ kon du fen de ah. même budul ci kaw tamit warul fen ci suuf de. sëriñ dëgg warta fen. ah am na soo xam dina la wax dagg dara ba pare waataat ko mënoon na waataat na li ñu wax du dëgg. maanaam am na sëriñ soo xam ne que na ne wax wax bi du bañ am di bañ am. Ah, te benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon du ñeent. non loolu moom fenn moom sëñ bi. waaw ah. waxuma la sëriñ waaye as gor sax du ko def. du ko def waaw. mais dina yàq dara ci liggéeyu sëriñ laa waxal. comme di fen ni waaw ah, loolu kay sëñ bi xam nga ne crédibilité kay ñàkk crédibilité mi ngi tàmbalee ci fen. Hmm. ñàkk daraja. mi ngi tàmbalee ci yëg ne yow amoo nangam bay fen naan am naa ko. Hmm. maanaam fen moom gis nga ñàkk. du du gàcca. Mm. ñàkk xam-xam. Mm. du gàcca. Mm. waaye fen. waaw gàcca gàcca yàlla incha allah as gor du fen. ak koy wax bay waat tamit waat lu bari ñu moytu. waat kay bay mooy fa la fen tàmbalee gëm ne li ngay wax nit ñi gëmuñu ko ba ngay waat kay. Mm-hmm. fa la fa la fen tàmbalee di. waaw mas ngaa gis ku naan billaahi wallaahi tallaahi jigéen a ma jur mas nga ko gis. comme ah, jot googu di gisul. <laughs> Bara waxtu bi dem looy tàggoo bu dul tàggatoo. nga ñëwal ci sëriñ si nga xam ne que ay ndaw lan. TikTok ubbi buntu ñu mën faa jaarale seen message ba ñenn ñi naan ñi xale yi duñ dem liggéey wala ñu dem jaamu ji yàlla wala nangam xeet boobu daal wala ñëpp bu amee liberté du baax foofu loo ci mën a wax. ah TikTok daal ab ab application la ci téléphone lay dem. Mhm. nit ko soxlaa koy téléchargé. waaw ñenn ñi joxe ñaan day def leen léegi. ah non am na ñoo xam ne seen seen seen seeni tànk lañ fay jaay. ah am na ñoo xam ne nii mm-hmm. xay na ñoom de réparé télé lañ fay lañ fay def kenn ku mm-hmm. nekk sa soxlaa la fa bàyyi ah, pour lan ñu gëm ne lii sëriñ waru koo soxla wala sëriñ nangam waru koo soxla application la mook taxi yi di daw ci mbedd bi ñoo yem sëriñ da koy dugg caga di ko dugg mbër di ko dugg footballeur di ko dugg kenn ko ne ku ci am yitte rek voilà léegi ñaan yéen fa joxe nag yëpp amoo ci problème ah, déet créé wuñ ko de ah, ay ñaan la ay ñaan la man mii dama damay dégg dara ci whatsapp bi xam ne lii dëgg la da boo moytut bu ma ko soxlaa def ko waaw ah, wow. kon daal lu créé wuñ ko ay hmm. bagages yuñ la am possibilité génne ko ci wat ci ci TikTok bi génne ko. waaw mais léegi def ñu gis ko sax beneen sëriñ bu ne yii nan ko moytu mën na tëj nit yi nit di wax yi xet yooyu bu doon looloo doo julli danga naan julli ne nii ñam ne la wàcceel nga wàccee kii ñëw na la yéegal loolu moom àdduna <laughs> ak la ma waxoon waaja ca télé ba ne ma maa yow bokkuñu xalaat bokkuñu hmm. gis-gis ma ne ko looloo tax ñu woonu di buñ bokkoon xalaat ak gis-gis duñu woo adduna ah. <laughs> la ba jeex werante la ba jeex ah kon Cheikh ci quartier bu La Selle Saint Saint Cloud hmm, boo ko boo fi jaawalee ba gars yi ah. moom foofu la nekk ci France ngeen ñëw gis si ko 610 man daal maa ngi maa ngi France fi ma dal Cheikh xamu ko xawuma ko waaw waaw kuy ñëw <laughs> kuy ñëw wooteel kuy ñëw wooteel WhatsApp ma wax la fi d'avant ku ma kuy ñëw daal boo ma woowee WhatsApp ne ma sëñ Baara. 610 90 90 sëñ Baara maa ngi nii pare ci yow laa jëm si. Ah. ma jox la Moussa euh, sa sama xarit bi na dalal. Ah. waaw ma tudd tur wi. Ah, waaw doo tudd ma jox la ko mu tegtal la. mu tegtal la waaye yii seex di wax moom. assuré wu ma ko de. assuré <laughs> tamit xaw ma fa ngay dal tamit. xaw ma ko de waaye daal di Belgique laay nekk. ku woo ku woo Manir ñang ah. ma woo ma jox la Manir mën la ñëwal fii nga ñëw di nga damay ah. bañ li nga wax ni daa nuroog chinois damay bañ gars yi dem <laughs> kon daal numéro bi mi ngi dox WhatsApp 610 81 81 Mamy Danfa war a nekk France di ko kii far Mamy dem États-Unis di ko baax euh, mais xabaar bi ñëwaat ñu dem. dem defe foofu ay émission sox yu bëri. incha allah nuyu soxna Kati ak soxna Seeg ñëpp. nuyu naa soxna Kati. waaw nuyu naa soxna Mber. nuyu naa soxna Fat Ndiaye. soxna Fat nuyu naa soxna Aysa Ndiaye. soxna Aysa Ndiaye waaw soxna yëpp. soxna yëpp ak soxna na Dieng ah. soxna Fat Dieng. Hmm? Fat Dieng waaw. waaw ak ñi ngoro ngoro yu ñoragul. waaw hmm? tuddal turi maa ngi. xaw seen su tuddal turi ñi ngoro ngoro ñëwagul. seexu naa ma wax seexu naa waxal. <laughs> wax nga pare moom ah? tamit daa mel ci la bokk doon. ngoro yi ñoragul daal ah. bari na yu ma ci na xam nga dañ ma gis pet Baye Mass am na bu bëgg baal ma <laughs> baal ma rek ah. ndax am na ustaas yu joxe ngoro yi ñoragut ah, ustaas yi am na ustaas ngoro yu ñoragut ustaas yor ngoro yu am na am na sëriñ sama xaritu sëriñu Mbàkke Mbàkke be bu fi dox bu fi ñaareel bu ñoragut ma nga bu ñoragut waaw xam nga yi dañu wut këyit boo xoonaan bi kii de dama am lu ma doon wax fan xam ni mu bare <laughs> kon yéen ñi bëgg noob te nekk bitim réew tubaab bi yow ba mu ngodd ba mu ngodd Cheikh Bara de la nga ñëw foofu mu defal la ko bu la neex sax nga indil ko tubaab bi bu ci nar a kii nga ko nag tubaab bii moom laa bëgg mu takk kii bu takkee affaire bi baax xam naa bu Cheikh Bara gisee tubaab bi jërën dina gën a yomb moo ngi ci France kon a dikk loraange dakk kon ngeen bàyyi ko xel nii ngeen di seetaan émission bi <coughs> bu insister ci whatsapp bi parce que tamit bu déplacé wu tuuti rek mooy loolu mais di nga ko mën a fekk ci ngi ci tournée bi tournée bi gàtt na ngeen def ko yitte balaa ngay taxaw naan dem naa yu mel noonu taalal sa oto rek nga ñëw wala nga jël avion fekk ko fi mu nekk wala ngeen woo ko ngeen daje bu ci gën a yomb ngeen def ko bu baax a baax ci même numéro bi 610 81 81 ci whatsapp bi di nga jot Cheikh Bara Ndiaye mu ñu tegtal la fan la nekk bu baax baax a baax équipe technique bi ñu moom it docteur Wade bu Casamance nekk ci Petit Sow Gauss Sow nekk ci Baye Massamba Diop nekk ci balaa loolu gërëm nañ tamit Ousseynou Ly Allemagne ci Cheikh Bara gis naa boolewoo ci programme bi Allemagne mais grawul Allemagne dama fay dem. Allemagne da ngay dem. ah yaa ah, ah, naa la ah. Berlin laay dal. ah Berlin ok jéena ba jabaate ma nga Berlin kon. waaw jéena ak na koy Diop mu ngi Bremen ak yooyu. kon ngeen nag mooy ndaw sama doon ñaanal ca tubaab ba te ñaan nga jàpput. waaw waaw waaw te ne woon jàpput. ah nee na ñëw nag. dafa ko. xam am na sëriñ soo xam moom nee na tam ko ñaan ci tubaab bi jàppul. waaw jeyna ba jabaate Cheikh Baar nee nga ñëw. tubaab bi jàpp jeyna ba jabaake. jeyna ba jabaate waaw. ñëwal ñëwal. ma jàpp tubaab bi. mu jàpp tubaab bi bu ci kat incha allah. incha allah bu baax a baax. mami d'enfant France Sayer Fall Espagne Espagne da nga dem. Espagne nag moom maa ngi xool la. yaa ngi xool waaw. waaw jeex na kon mm. incha allah. Mm. kon ngeen bàyyi xel bu baax a baax Cheikh Bara Ndiaye ku ko soxla rek mu nga jërul ngay topp GP yooyu demal gisi ko jërën instant bi nga indaale euro yu bari nag kii ko teral ko gan indil ko bàyyi ko xel bu baax a baax ngi jox ko mu lekk bu suur parce que njaayeen la euh, fan yooyu doo fa nekk di war a xanaa Eh, woor moom defu defuma ko wax dëgg yàlla defu ko gandu woor eh, gandu woor gërëm nañu équipe technique bépp moom it docteur Wade Casamance Baye Massamba Diop Petit Sow Gawsu Sow soxna May Diop réalisation bi sëñ Fallou mbàkk Diop gërëm na ko ak alaaji Soloxo Ndiaye sëñ Fallou waroon def émission bi mais dafa mujj moom di patiner quoi ñu bàyyi ñu nanguwaat micro bi gërëm nañ ko bu baax a baax ak eh, ñëpp ñi nga xam ni ngi seetaan Tektal TV ngeen abonné ci Tektal TV abonné nag doo ci fay dara kum nga abonné kum neex bul abonné wala nga ci YouTube bind Tektal TV gis suñu bagage ñun duñ def publicité émission lan def ku am nekk ci njëriñ nekkuñ ci ay féewaloog yëpp wax ci xam-xam dibi ba fee ko mën nga jariñ ko ko mënul tamit nga yem ci li nga mën bu baax a baax a baax xew dikk loraa nga dak Cheikh baar Ndiaye boroom def gis émission bari jaajëf